seetaan ci leeral TV leeral point net nuyu nañ leen bu baax a baax di leen GA tey ñu ngi parcelle bi ñu nekkee parcelle tey ngeen gis open press bu toll nii Franc moo ñu fi woo dox ci diggante moom ak Forza di làmb joo xam ne mbokk yi di làmb joo xam si ni ñoom ñaar ñëpp ay mbër lañ boo xam si ni ku si nekk diggante parcelle ak ak ki nga xam ne mooy Fass di combat boo xam ne làmb dër bi la muy dox si diggante Franc ak Forza combat boobu mbokk yi kon mbokk yi day ñuy ànd ñu jël xale bi nga xam si ni xaleñ loola doomu Modou loola ah moom laay njëkk a nuyu parce que barki dee moo am na jaloore ju mu def ci làmb nee naa leen na ko gone yi bàyyi xel ndax xale la boo xam si ni ah wane na ci fulla fayda wane na si jom fils maa ngi lay nuyu. waaw eh, maa lay fay. ci loo ne. maa ngi sant bu baax taw feex. an sa pap. sa pap mi ngi si jàmm bu baax. dina ñëw. Ah, dina ñëw kay incha allah. gis nañu keroog Mama Lamine 2 nga bëreeg moom bëre bu doy waar ah tey eh, nga daan ko jëli bu rëy fan nga jëm. mais loolu wax nañ si ba pare nañ jàll nga jëm. ah mais samay morom rek nañ ma jox samay morom ñu bëreel. kan ah, a maa ngi ci làmb mais xam nga say morom yoo xam ne tey jii ku la ku la ku la ku jox seen avance nga jël. ndigal sama morom la ne ñu bëre. loolu combat waaw neex na kon. ah allez neex na. Baye Fall Cheikh jaajëf. jaajëf waay. Njaago or wala Njaago urus. waaw ah, or la. Njaago or la. Njaago or dafa leer la yàgg na. waaw. Ah. Ah. noonu la préparé seen diggante ak Forza. saa ñun pare nañ lépp dans tous les côtés. waaw fu ñu woo ñu ko. barki borom Touba pare na yàgg na. waaw. Ah. loolu yóbbante Forza. Forza Forza na xam na ne mu ngi doog am combat de te xale lay bëre. yéen a ngi soog a am combat. ñun am nañ fii lu weesu lu raw lii. waaw bés bu ne bëre nañ ko. ñun ñun taxusaan mënatuñ jaaxal. waaye waaye bis bi bis bi bis bi. waaw. Ah. bis bi bokkul ak yeneen takkusaan yi. bis bi mu ngi tuuti. Franc yaa ngi bëre la lii jaaxalu ko si làmb. koo xam depuis xale ba li la. Forza tamit lii mooy métier am. waaw. Forza champion la kenn bañu ko mais ñun suñu mbër lañ xam quoi Franc ay sa yi teewuñu ko si làmb quoi. jërëjëf. grand bis bi moo gën a tuuti suñuy bés yi ñuy bëre. billaay ki ñuy bëre xam nañ ko bu baax sa non mënul téye Franc. day xeex de. waaw baax na. loolu rek la am ci làmb daan na fi Abdou Diouf bu yàggul. loolu yëpp garaawul Abdou Diouf nga wax loolu la am ci làmb ji xeex rek mais bis ko booy bi jàppee làmb i jeex. tey njaago yi aye. waaw njaago yi ñoo aye. la demee tey ku ne xam na ne tey njaago yi ñoo xewle Franc ku wax Franc wax làmb ku wax Franc wax bis bu rëy kon dama leen di bàyyi ñu jël ambiance si biir la si biir open press bi ma àndoon ak Cheikh. mais Garga. maa ngi lay ziar sëñ Fall. ci loonee sant la baa yaa ngi ci jàmm. noo leen di waajee ak Franc ak seen diggante ak Forza. waaw di ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla defal jàmm ak sutura. wax ko ni ñu ko war a préparé may ko ndam soobee yàlla. coowal dëkk bi bari na. dëkk bi tàng na. en tant que porte de voix lan ga ciy wax ci ndaw ñi. waaw xanaa di wax ñu naan ànd rek te xam ne dëkk bi lu dul jàmm jàmm ko gën di ñaan na fi yàlla def jàmm parce que tamit nag am na ci loo xam ne ñun ñoo ko mën a defar kenn mënuñu ko defaral comprendre nga mën am lu la metti mën nga manifester waaye nga bañ a di yàq surtout yàq bi quoi boo mën nga manifester waaye nga bañ a yàq wax dëgg yàlla leen wax nan a delloo si seen xale te xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xam ñaar

waaw ñu ngi nii taxale rek yaa ma gën a xam comme dam rek. dëkk bi yëngu na guy gi en tant que de porteur de voix lan ngay wax ndaw ñi. <laughs> ah loolu saa waay <laughs> man ma wax dara. añ ñaan yàlla dolli jàmm rek ndax ku ci nekk li tax ngay xeex ci say droit la donc force de l'ordre yi nañu yërëm askan bi rek tamit xam nga neexul chaque jour nga gis ay mort chaque jour nga dégg ay blessé force de l'ordre yi nañu yërëm jeunesse bi rek waaw loolu laa ma ci wax. jeunesse bi gën a gën a gën a farluwaat jeunesse bi dañoo war a gën a farluwaat si jamono ji. waaw mais xam nga tey mooy li ma la wax nee naa la ku ci nekk rek la ngay xeex ci say priorité ak ci say intérêt moo tax nga koy xeex te yaakaar naa fii kenn xeexu fi pour yóbbu sa kër. mais est-ce que bu ñu xeexee sunu intérêt ba yàq est-ce que dina ko ñàkk. ah waaw moo tax mooy la léegi nag dañuy fexe ñu toog waxtaan rek amaana bu ñu toogee waxtaan yàlla mën naa andi solution comme tamit président nee nañ ñëw def dialogue nañ toog waxtaan rek parce ci gauche wala ci droite ñëpp intere réew mi moo tax waaw donc dañ ñaan yàlla doolu jàmm rek. sant bu baax alhamdulilah. keroog jàkkaarloo ngeen président waxtaan ngeen ci lép ba déggoo. waaw. fan ngeen ci toll. waaw dem nañ seetaan dem nañ fa ñu waxtaan ci lu jëmale lambo kanam waxtaan nañ fa ci ay points yoo xam ne président pare na pour teg ci loxo ñu ngi koy ñaanal ren nit yéene nga am yàlla moo tali yéene yëpp si barke Seydina Mohamed Jamaïcain foo toll sa journée yi ñu bëgg a xam sa journée yi fan nga si toll. waaw sama journée yi maa ngi ci ne di ci avancé ñëpp xam nañ ne diggante Baye Mandione ak Bébé Diène nañ ko xaar mois de août incha allahu rabi ak combat yi ci topp waaw buñ ci jógee rek bu saison bi tëjee déwén incha allahu rabi ñu joblu ci bis bu mag bi rek diggante Reug Reug ak Bombardier combat royal la la roi de MMA. waa Reug Reug Reug Reug Reug Reug nga jël Reug Reug boole ko Bombardier décoré sa ñaari. ñaari adversaire yoo xam si ni ay ndaanaanu la ñaari champion lañ si senegal si MMA moo tax bu jour boobaa dañuy defar couronne defar sees defar dok ku ci daan si ñoom ñaar yaay don la roi de MMA si fii ci Afrique. fii ci Afrique fii ci Afrique Sénégal ak li ko wër. moo tax combat boobu combat royal la pour mu leer ci nopp ñëpp combat bombardier ak rëg-rëg combat royal la dañ leen di defaral couronne defaral leen defar lépp teg. ku daan jël mais Jamaïcain combat boobu fan lay amee arène nationale lay amee wala. arène nationale lay amee. ki ñu war a tuddee drapeau bi nag surprise la bu ñu ko waxee loxo dina dar gémmiñ. nga ne lan. surprise ku kenn musul tuddee darapo ci réew mi moom lañ fas yéene darapo drapeau Reug Reug ak Bombardier. ah waaw jërëjëf Jamaïcain. jërëjëf kon tegal sa baaraam foofu. nañ ko fi teg te dem te ñëw. Ibulaay maa ngi lay nuyu. waaw delloo naa la ziar Baye. ci loo ne. lépp jàmm alhamdulilah. Ibulaay Forza Forza ngeen jël Forza ñu boole kook ki nga xam si mooy Franc naka ngeen di waajee seen diggante ak Franc Forza. waaw bon combat la diggante Franc ak Forza xam nga waaj nañu Franc bon pare na def na li mu war a def lépp di ko daal yàlla may ko ndam bu sedd guy hmm. loo doon def arène nationale démb. <laughs> démb lu ma fa doon def arène nationale ah dama doon gën sama combat. waaw <laughs> ah, mais date bi. le 18 xam bis bi nan lay demee ak combat yi. waaw dimanche 18 juin la incha allah. Hmm. bon su diggante Youssou ak Mor Kang Kang Anaconda alliance biram waaw vraiment dañ ciy waaj affaire yu am importance daal bu soobee yàlla di ñaanal ñëpp ñu ñaanal ci bu soobee yàlla incha mais extrédit jàmbaar académique ngay wala say fi bopp. non Ibrahima production la mais moog jàmbaar benn la rek sot seeg def la <laughs> c' est automatique sëñ Fallou leeral point TV ñu ngi leen di remercier Amadou Ba doomu parcelle la Franc doomu parcelle la donc ñaar ñu yàlla boole la donc di coup mu am open presse bu toll ni c' normal que nga gis njabootu Amadou Ba ñëw fekkee loolu. est ce que a ngi jàppale xale yi nga xam si ni ñoom ñoo nekk ay doomu parcelle nekk ci làmb di ci yëngu. a ah, bu baax boo déggee turu Abass Ba wala Babacar Gueye rek. ci doomu parcelle xamal ne Amadou Ba moo leen yónni te euh, en général chaque jour da ngay dégg franc xam mu ne mi gërëm Amadou Ba wala Modou Lo loolu cela veut dire que bu amul foofu gërëm du am donc c' est sûr que c' est certain ñu ngi leen di jàppale bu baax a baax. diggante ministre bi ak jeunesse bi nekk parcelle. ah alhamdulilah parce que du lu ñuy vérifier parce que fan la ministre la jeunesse dëkk Parcelles Assainies ministre la femme doomam la donc loolu jàpp ne ne tey loolu bu ko defee parce que bëgg na jeunesse bi. vraiment am communion bu baax ak moom moo tax mu jël doomu parcelle doomu gin gi néew dénk ko jeunesse bi donc loolu day wane ne rek vraiment am jeunesse bi alhamdulilah. Franc am na combat diggante moom Forza lan nga ciy sànni. non jaaxlewuñu ci Franc Franc moom xam nañ ko quoi mooy suñu njaago njaago or la. jërëjëf rajo ah, merci kon du njaago për. ah non non non. or or la lu leer la. or or gis nga or la. non galam la or. Modou Lo xale yaa ngi ambiance dox ci diggante Franc yaa ngi noonu xoolal ma sama yaay ji yële ma sunu yaay ji ma sunu yaay ji ñii ñooy jàppale seeni doom ñii ñooy jàppale seen lépp. Modou Lo ngi noonu Modou Lo ngi noonu Modou Lo ngi noonu. xarañ loo ngi noonu xarañ ngi noonu xarañ loo ngi noonu xarañ loo ngi noonu saafonte naa mbokk yi Forza xale koy lekk xoolal Fara dafay xale di def yëf yi xale ñëwal ñu Forza nee leen Forza ey Forza xaale koy lekk ey Forza xaale koy lekk xoolal Fara dafay gone di leen yem xaale ñaawal ñu dem. Boy Baylaat daal leen fii tey parcelle di wax nag waroon jiital parce mooy borom bis bi tey ñun ñëpp moom moo ñu fi dajale xam ñëw ne ci ginnaawam parcelle yëpp di ko ñaari incha allah dimanche yàlla may ko bu set wecc mu am combat bu rëy combat capital est-ce ci moom li ngeen wàcc non bu baax a baax mm-hmm. yàlla dogal na ne xale mm-hmm. yoon di def ay preuve am yu leer naññi mm-hmm. pare daal ñun dañ koy ñaan rek yàlla mi yor ndam incha allah may ko ndam bu set wecc dimanche bu soobee yàlla lan lay nekk ci moom non Franc kenn dootu ko jàngal dara wala di ko wax lara ci làmb mm-hmm. parce que preuve am def na ko muy ci làmb simple muy ci lutte avec frappe mm-hmm. ba tax na mm-hmm. Forza moom moo ko mag mais Franc lu lépp lu nit xam ne di xam ci làmb xam na ko moo tax suñu wax sax jaru mu ci bëri koy ñaan rek mu ànd ak tekk ak tey dem bis ba incha allah parce que yëpp ne ci ginnaawam yàlla may ko ndam incha allah. loo koy moytu loo koy moytuloo Forza ci combat bii. non dara luñ koy mais Forza ku ne xam na ne am na force de frappe droite. bu xamante ne bu koy moytuwoo ci Forza. kon daal ah, kon daal saxal dal na à 100 pour cent. waaw xeex bi xeex bi. waaw ñëpp ci xeex bi la ci bi la ñuy tiit. jox leen borom bis yi mbuub bi. mooy ah. borom bis bi tey ñu daal dañuy ñaan yàlla mbay ko ndam. Ah, te parce que yëpp préparé bis mm. ñu ñëw dem stade sel ko feesal. yàlla may ñu ndam ñu ñëwaat incha allah. ay ca ñoonu la demee ñoo ngi ak Émile François Gomis c' est un très grand champion nag parce Sénégal n' est a donné à n' importe qui loolu yaakaar ne liggéey moo koy joxe nga am nag combat capital boo xamante ni te Sénégal yëpp ñu ngi xaarandi pour nga prouver sa kàddu bu njëkk ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la lan lay nekk. salaamaaleykum monde entier. salaamaaleykum. Ah, salaamaaleykum monde entier xam nga maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp képp ku fi teew rek maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di ñaanal suma papa. ak bépp papa yi nga xam dañoo wàññeeku ak bépp ñoo xam dañoo wàññeeku rek yàlla yërëm leen di nuyu suma yaay bu baax a baax ñaanal yàlla na fekkee sama njëriñ di nuyu sama waa kër sama waa famille sama waa koñ waa parcelle 1 ba 26 parcelle rawatina unité 7 ak waa koñu njaago parce que ñun amuñu dara lu dul parcelle ñun parcelle moo tax ñuy sonn moo tax ñuy xatraay moo tax ñuy dee moo tax ñuy ñax matin soir fu feneen fuñ dem fuñ dem sax dañuy xat parcelle lañu xam kon mbokk di leen woo encore une fois ci bés bi ginnaaw loolu nag damay sant yàlla bu baax a baax santaat ko parce que moo waral lii xam nga aussi waaw merci muy noonu di sant Yesu Christa bu baax a baax comprendre nga parce que man Franc ñëpp ma bëgg ñëpp may jàppale aussi tey nag dama bëgg am ay cadre remerciement yu ma wax rek tey Modou Lo dama jógee voyage ah. këram laa nekk préparé combat bi ah. yaara ma ngi du ma bàyyi ma fenn wallahi amul lel sama dërëm génn fa regroupement bi këram la woon xam na ko yëpp moo ci jàpp lépp lépp lépp Modou loo maa ngi koy gërëm moo xam lépp lu mu bëgg ah. yàlla na ko yàlla defal dama koy bàyyi ak yàlla ku ci mel ni Papa Sow suñu grand la suñu frère la ñun amuñu kenn ku dul moom xëy na dafa nekk ci ay xat-xat ak affaire yi xam nga rek dëkk bi mais ñu ngi koy ñaanal jàmm yu nuy encore une fois ñoom écurie ñoom bokk ci écurie muy jàmbaar muy président muy Mame Père Ba ak Mansour Ba ak waa staff yëpp buñ limee rek dañuy juum ñu ngi leen nuyu di leen ziar gis nañu luñ ñuy jàppalee ñun dofuñu ay nit lañu gis nañ ñuy jàppale bu baax am na solo waaye combat bi dafa nekk combat capital boo xamante dañ toog mu des ay fan yu néew nga jóge fi voyage bëgg nañ aussi nga wax li sababoon voyage boobu noonu parce que am nañu naan ne Franc dafa gis Forza sumeeku mu diit dem yokku cere doolu ñeex pourtant man yàlla xam na ni sax Forza maa ko njëkk sumeeku ba may def émission bi ak Lamine samedi samedi laa ko def dimanche ma xëy dem tukki parce que boobu yëpp pare pare nañ ko woon nga xëy na affaire moo tombé noonu mais waaw mais Forza champion bu mag la mm-hmm. jox cër la fekke naa muy bëreeg météo stade Iba Mar Forza fekke naa ba ngay bëreeg moom man seetaan naa la ba ngay bëreeg moom bu at bi sifflé ma dagg jëngi dox kaw. nga la fële. Bukar. Bukar fu fekk nga ma foog. we we diwuma la Forza champion de te jox naa ko cër bu mu munti am mais Bukar. Bukar ba dimanche incha allah hmm. waxuma kenn mu ñëw. di toog ay ba toog pour ba nañ ma jégal ci kàddu ba ay am ay feebaru kii noonu. xam ah, nga toog toogaay bi. non non du ma fa daal du ma fa yàggal nit yi. waaw waaw waaw. waaw xam nga ñun tey ñëwuñu rek maanaam nekkuñu di ay sportif lañu ay athlètes lañu nekkuñu di préparer benn combat. ñun chaque jour dañuy entraîné bu ñu amee combat bu ñu am combat yëpp ñu ngi ci bu ma voyagé war naa voyagé et puis dem yokk sama xam-xam amee tey amoo sa xam-xam demeewul noonu yaa mais war nga ko mën a yokku ji extérieur wala noonu loolu kese la moo sabli woon voyage bi uh-huh. beneen bi ak lan mais Fara Fara nekkul ne say mbokk ah waaw yow ay en naam ay en conscience sa morom jigéen bu la ko xoon nga defante ak moom saxamtuma man mi di xale bu ndaw mu ne moo mën moom doole ba bés ba mais foo tollu ci xeex bi sa diggante ak moom ñu bari ñoo ngi sonn wax naan xeex bi xeex bi. waaw mais xeex foo toll foo ci mën moom lan la gars yi di wax luñ ko jox. favori ci xeex favori ci xeex. waaw dinaa ko ci wuyu ci. dinaa ñëw. defante moom ba mu saf sap wuy ko ci loolu. da nga a duma dinaa ko duma ba pare daan ko. du taxel est-ce que nekkul da rek. non yow yow fekk ma fu ne man du ma négocier bëri naa ba sama bopp yi di néew yi dugg fu ne man amul yooyu. mais bëri door lañu wax. man négocier wu ma. xanaa fee laa jëm te fee laa jëm. incha laa jëm te fee laa jëm. waaw ngi lay seetaan loo koy yóbbante. mais moom moom est-ce que am adversaire bu toll ni man xale bu ndaw def un mètre et def nii yaa gën a xam loolu koy laaj. waaw waaw guddi guddi parcelle. Hmm. léegi lan ngay wax ci jeunesse bi en tant que porte de voix lan ngay wax jeunesse bi ak lan ngay dénk ndaw ñi hmm. nga xam ne boo waxee xale yi déglu la hmm. lan ngay dénk ku ne xam ne ne dëkk bi tànk na lan ngay dénk say fans ak lan ngay dénk ndaw ñi ñun yàlla dafa dogal ay xale lañu boo nee jeunesse rek jeexal na wax ñun xamuñu dara ay xale lañu ñi nga xam ne ñoo ñu jiitee xam ma ñun jàmm rek lañ bëgg fii ñun li lañ xam sport xamuñu dara lu sport bañ juddoo ba léegi jàng nañ nag aguñu benn niveau bi mais suñu yàlla dafa dogal suñu xam-xam yaa gën a xam sori wuñu daal waaw mais sama xel ubbeeku na am na ñoo xam ñooñu jiite dañ ñooy suñu njiit xam nga ñu leen di ñaan tamit ñu daal jàmm lañ bëgg daal la paix la ñaan waay parce que jàmm ji solo parce que gis nañ démb arène nationale coow am fa ba am combat boo xamante ne mujjul yeegu côté violence waaw violence moom baaxul maa ngi woo waa Forza waa camp Forza ak ñëpp ñi nga xam dañuy bëri si làmb ñi ñu def ko fair play parce que ñun loolu lañu xam parce que lii suñu sport la tey boo ñu ko yàqalee ñun ñooy ñun ñun ñooy ñun ñooy si ñun lay métti parce que ñun dañuy jël di ko yóbbu di jimbali suñu famille ak ñeneen ak ñeneen comprendre mais tey bu ñu ko yàqalee si ñun lay métti loo koy yóbbante mu ngi lay xool avant nga woote waaw di ko allah